salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna ñu ngi leen nuyu di leen ah. ñu ngi fii nag tey ci Pikine seet si benn xale boo xam te ne bi mooy doomu Dégol di Boy Niang am bis bu rëy war a bëree le 13 juillet foofu ci arène tey nag ñu ngi fii ci Pikine ah ñëw ci goxam mu war a def open press war a jàkkaarloo ñi nga xam te bi mooy journaliste yi ak ay supporters am ak fans nga xam te ñoo koy bàyyi xel te am na fi seen xool ki nga xam ne mooy Boy Niang fa la toll ci wàccaay bi ah digganteem ak ah, Lac de Guiers numéro 2 pour le samedi foofu ci arène nationale aca damay tomb xool ñi nga xam te ne ñoo nekk fii ci open press ak Boy ak ay mbokkam nu ñu koy indee incha allah pour maa ngi taxaw ak papa yi Boy Niang muy sama papa Dégol papa ngi si wàccaay bu am solo seen diggante da ngeen demee xoolal toll si ñu ngi di ñaan yàlla si barke Abdou Khalid Jeylaani barke Cheikh na sa yàlla mën adversaire bu doy ngeen di bëreel ku naqare bëreel ngeen di bëreel muy la dëgër mais ndam bu la ko ah te si kàttanu yàlla ñun la yàlla di àndal. booy yàlla lu muy bëree xeex wala wala bëri. lépp lay def bëri doon la ñu wax lépp lay def te incha allah ku ñëw foofu di nga kontaan ñu ngi sant nag sécurité bi di sant ministre de l'intérieur di sant directeur police di sant sécurité bi ñëw fii yëpp parce que lii ñu commissaire Pikine i defal muy Pikine muy Thiaroye muy yëmbal ñu ngi leen sant di leen gërëm gis nañ taxawaay bi lii ñu bañ mooy déborder déborder bi la bañ. waaw loolu la ñu bañ. jërëjëf kontaan naa si yow daal merci. Kors maa ngi lay ziar. ñu ngi ziar wér maanaam. wala ndol si wàccaay bi. waaw waaw daanaka yemb nañ ah daanaka yemb na. ngeen di bëree booy bu naqaree te kenn daanu ko. man dama xaa jël pour daan ko. waaw ndax dina yomb. non non ba xoolee carrière booy ñaar lu yomb buñ ko doon jël. duñ yegg si fii parce que la bi muy bëree kalaaf booy ñaa ngi jàngi. mais di bëreel nii ak yi di bëreel dafa am différence grand man maa lay yokkal ma ne la la degeer daa naqaree bëreel kenn daanu ko man dama koo jël kii daan ko si kàttanu yàlla ak mbaaxam. dina yomb. ndax dina yomb bëgguma lu yomb damaa bëgg ñu xeex bëre waaw. Gus ziar naa la. ziar naa la Thierre di la jox sa wàccuwaay Cheikh maa lay bëggee di la jox sa wàccuwaay. nga ñëw ci wàccaay le seen diggante ki nga xam te mooy la degeer numéro 2 foo leen toll fi mu waaw boo leen gisee taxawaay bi nii ngeen xam ne école de lutte booy ñaa staff la ñoom kii mooy Rhone. boxeur la kii mooy grand Adama Diop sunu doyen la euh, mën naa wax ne directeur technique la si école de lutte Boy Niang euh, su fekkee ne dafa am un ensemble boo xam daf fi nekk ñuy préparer depuis huit mois ça fait presque neuvième mois bi la ñuy dugg nii soo parewulee je crois que dootoo pare fi mu toll nii pare nañ te dañoo ne euh, bu jëf teewee wax day toxu samedi yàggatul li ma leen bëgg a wax daal mooy mbër mi léegi mu dugg si di ngeen gis état physique gis ko moom dina waxtaan ak yéen ngeen xam mbër mi si yan fu mu toll mais fi mu toll daal li ñu leen mën a wax mooy pare na ñun staff école de lutte booy. mais Cheikh soo xoolee ki nga xam te ne mooy Lac de Guiers numéro 2 ak adversaire yi booy ñaareel am dafa am différence ndax Lac de Guiers gars moo gën a naqaree bëreel ci làmb ndax xam ngeen loolu. waa xam nga ku naqaree bëreel amul stratégie bi ngay teg ba yegg si moom moo jafe te je crois que Lac de am na foo xam ne fa la jógee. am fu mu jëm am na loo xam ne dina ko bañ si combat bi booy ñaa am na fu mu bëgg a jëm te wax na la dageer ne ko da bokk si yoon wi rek comprendre nga mais sama bët jéggi na la waaw kon nag loolu yàggatul di la. doy maa ngi lay ziar. waaw dellu a wér a wér. Ah, fa leen toll ci wàccaay bi. pare pare pare pare nañ pare nañ. mais Ndoye ndax xam ngeen ki ngeen di bëreel la dageer de. non ñu xam xamuñu la dageer. ki ngeen di yi ñooy wax rek. Boy Niang de amul kuy naqaree bëreel ku mën a bëreel ku mu mënta daan ci làmb. billaay walaay mën na daan ñëpp. bëri na plus de vingt combats benn defet la ci am. kii kat moo ko daan. Eumeu Sène. lanu Boy Niang la. grand am ah, jeex na xam-xam baa ngi ci kër gi dañul. Eh, ndax euh, Eumeu Sène li nekk si moom mi ngi si Boy Niang. lu raw moo nekk ci Boy Niang. Uh-huh. waaw. wala tool ci wàccaay bi. déggoo li ma la ma ne la pare nañu bis bi rek la ñuy xaar. ñu rafetal ko ba mu rafet am ci ndam lu sedd guy suñu ndax booy Niang mérité na sax lu ëpp lii tey gisoo Pikine moom mobilisé wu moo génn da ngay xool états yi kër yëpp ñëpp génn ba pare kër gu nekk tey da ngaa sentir sa bopp ci combat bi tey am na ay doomu Pikine yoo xamante ni dañoo dagg biyee ñëw ngir combat bi mooy ñi nga gis ni ñu taxaw nii ña la taxaw ña la ñëpp ay doomu Pikine lañ yoo xamante ne nekkuñu foon ñenn ñi ñoo Boy Niang ñoo nekkandoo woon Japon mooy ay day lakke am na ñenn ñoo xam ne samay gaañ lañu ñoo jóge Paris ñëw ndax bis bi kon xam nga ne bis bi jaral na waa Pikine mais sa diggante Boy Niang lan la xeex lu lu bis laaj rek ñu def ko xam nga tey mënoo dem ci guerre di joxe say arme te làmb dafa baaxoo leen moom ak sport yëpp nag ñoo yem sax bis mu amee rek fu nekk da nga gis coach su génn fa tey équipe nationale day football da gis coach su yëpp am Aliou Cissé warul def lii làmb ji ku nekk da ngay taxaw taxawaayu entraîneur mais dama ne la bu bis ba booy ñaa mooy coach sa mooy diriger mooy daan incha allah bu neexee yàlla. da koy freiné du ko di géej la dagar mënul freiné kenn la dagar li muy wax dëgg dëgguwul ah. la dagar gëmul sax boppam moom la dagar xam nga la moom a métti moom su gëmoon boppam am na yoo xamante warul ci sax dugg moom warul bàyyi ba toll fii ci combat di dem wëri képp koo xamante socialu nawetaan ngay yore mu lay wëri lu leer laa lay wax koppateem boobu foofu mu jógee mbuur bu gëmoon boppam koppati ba du fa jógee na gëm boppam soni buy dem soni buy dem mbuur nañu nuyul kilifa na ko ñu ngi koy nuyu bu baax lees ki bay ki bay ndooy moom macha allah boo a kaar mooy daw arène nationale. non arène nationale amul kaar yu daw ñii. dañuy dox dem dox bi xamal lan la. Uh-huh. midi. Uh-huh. ku mu fekkul arène nationale. boo ñee doo am place midi laa la wax. midi uh-huh. huit heures ku nekk ba pare. Baye Ndiaye ñaan nañ ko lool na tëji porte yi waa Pikine dugg. huit heures laa la wax. na tëji porte bi waa Pikine dugg. mbër bi nag heure bu neex mën na ñëw. mais supporters yi moom. midi ku mu fekkul ne sax doo am place. kontaan naa ci di kontaan seen site ndax lee sama waay la nit ku baax la bëgg naa ci yow tamit yow Baye Fall bi